حمدا لمنزل لنا وداي ومنزل الشفاء والدواء من امر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من حيث مسس مرت يبرأ بلا wala li wa sahbi sabil ala

الحليم عن الزبال وفي جميع المسلمين عاجلا ثم خيم خوفا وحزنا عاجلا

زاهدين واجعل جميع زاهدين ناسهين واجعل جميع ناسهين صادقين واجعل جميع صادقين فائزين وامنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا وأبدا alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaa wal ñoo ngi fii ci jumaay Touba ci diyaafa daairatu muxadamatul xidma ci taxawaay yiñ baaxoo amal at mu jot ci koor gi muy dundal ruu yi waaye nag dundal xol yi dundal jëmm yi loolu moo taxoon ba Cheikh Muntaxa ganam gi mu am ca fonk ko lool muy Cheikh Sidi Mouhamad ibnu Youssouf ibnu Cheikh Sidiya ak délégation bu teel bi mu àndal baaxoo fee ñëw at mu jot ci mujj koor gi manees na ne vingt-septième jour ci koor gi laytul xadar moom lañ ko baaxoo ganesee muy luy neex sëñ Muntaxa lool ba mu ñëwee programme bi mu ko tegal démb dana ko ne ñëw ànd ak moom wettali ko ci njàng mi waaye tay mu ne ko na noppul waaye bu ngoonee na dem doge ji mu xad ca daayiratu Muxaddamatul Xidma ndax jëf jooju jëfi seen Tuubaa moo tax bu sañoon ku fi ñëw cay kilifa da nga ko yóbbaale comme ni mu ko defee woon daaw moom nag bi mu ñëw mi nga ànd ak gan ñu tedd Cheikh Sidi Ahmad Cheikh Mouhamad Fall Muxtaarul Baba ak mboolee mbokki taalibe bi mu àndal sëñ bi am lu mu ci boolewaat ren ne yàlla day wax ne waatul buyu tamit abwaabiha comme ñoom seen kóllëre waa tuubaa kër Cheikh Sidi yàgg na daan na ci maam Mor Anta Sali la woon ak sëñ bu soobe ne nañ leen ko nañ woo sëtu sëñ maam Mor Anta Sali bi nga xam ne maamam Cheikh Sidé lañ ko tuddee muy sëñ Cheikh Jooreel mi di doomi Baye Cheikh Coro moom sëñ Cheikh Absa sëñ Cheikh Absa moom lañ tuddee Cheikh Sidé Kabir sëñ Cheikh Jooreel mi ne it lañ ko tuddee daan ne kon nañ ngeen ko woo na ànd ak moom foofa ne bu fekkee dem na ci jumaa ji kon fekk fa sëñ Afe ak waa Mbuso bee fa nekk ne loolu jaar kóllëre gi foofu la tàmbale woon ci diggante Maam Mor Anta Sali ak sëñ ak ak sëñ Bousso bi loolu waral jotaayub sëñ Cheikh Jorel mi ci ndigal sëñ bi ci la fi ànd ak moom ñëw fi sëñ bi moo ko sàkku euh, ñoo ngi sant bu baax a baax jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbokk yépp di sant yàlla bu baax ci sunu gan gu tedd gi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha moo santaane ngir ñu akaayeer ko fii. dundal ci nag kóllëre goo xam ne ma nga tàmbale woon ci sëñ Mor Anta Sali ak euh, Cheikh Sidiya Babal Kabir ba mu tuddee ko seen Cheikh ab sa yàlla dogal gan gi ñëw fi sëriñ bi daaw ba ren saa bu ñëwee mu wax ne naa ànd ak ñoom tatagal ko ngir barkeelu ci tur bu tedd nga xam ne fi ñu sant yàlla bu baax nag di juddu ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaan yàlla sunu borom dëgëral taxawaayam. mu yàgg fee ñëw yàgg nu fee fekk te sunu borom defal ko lépp lu mu bëgg ci dara ji maam yonent bi alayhi salaatu wasalaam asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu أتكلم باسم الوفد الذي جاء من بوتليميت بدعوة من الخليفة برئاسة الشيخ سيدي محمد اليوسف للشخصية نحن نحن مسرورين غاية بهذا هذا الحفل وهذه يعني الضيافة الكريمة وكانت إقامتنا هنا فتبارك الله إقامة لا يعني لا نستطيع أن أعبر عنها لأنها كانت إن شاء الله عمل يعني مثمر وله فوائد كثيرة وإحياء للعهود وتأكيد على أن العلاقة يعني إن شاء الله تمشي إلى القدام وخصوصا ما يتعلق في عهد في عهد الشيخ الخليفة في متقى أطال الله بقاءه وجزاه الله عنا خيرا يعني لأنه هناك علاقة عامة وهناك علاقة خاصة هناك علاقة عامة فيما يتعلق بين الأسر وبين المدن إذا قلنا أبو تلميت وطوباء هذه مدينة هي مدينة واحدة في اسمين فقط أما هناك علاقة أما اللي خاصة بين الشيخ مرتقى والشيخ سيدي محمد هذه خاصة وبنجعل إن شاء الله على على تقوى من الله لذلك ما كانت لله ولله وفي الله إن شاء الله سددتم نرجو الله تعالى التوفيق وجزيتم خيرا وكفيتم دارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار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 wajal jamii annaasi na saadiqiin wajal jamii saadiqiin faa'iziin waaminaa yaa rabbanaa bil xidma lil muslimiina abadan wa rahmaa فهم منا أزا وليا